asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, yéen waa ëttu tëmb ndemeen filatu di doomi soxna Mbeen Dem soxna Mbeen Dem di doomi Sëriñ Abdullahi Dem Sëriñ la Dem sama waajur wu sama mooy sëriñ Moussa Ndiaye Serigne Moussa Ndiaye itam di doomi euh, sëriñ Bangali ak Fati Abdou Dem mm, maa leen di nuyu di leen siyaare di leen bal di leen bal aq siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal képp koo xam ne askanoona ci tëmm demeen ak ku ci bokk ak nu ci bokki ñu ñaanal ñëpp yàlla wéral seeni yaram guddal seeni fan ba li ñu yéene lépp suñu borom defal leen kàttan noonu ko si Touba loo de waxee rek muy sama rak ah, moo tax ma dugg xam naa ne bëgg a leeral tuuti rek ci suñ bokk yooyu nga xam ne ah, sëriñ Madoune Dem moo mooy seen waajur waaw ah, moo bëgg a leeral ni nga xam ne noonu la ñu demee ci ëtt tëmb bi kon euh, nu tàmbalee ko ci nga ci ci maam ya nga xam ne euh, ñoo sos loolu kon dañuy tàmbalee ci la sos seen maam ya mooy ku ñuy wax maam Demba Jóoba Jóob ca bayti Dakar dafa ju am doom ju ñuy wax Awa Jóob soxna Awa Jóob moom yi nag moom lañ jële bayti Dakar yóbbu ko tëmb ndemeen bañ koy yóbbu tëmb njameen jox ko sunu maam ju ñuy wax Moodu Aminata Dem Moodu Aminata bi may wax nag séer euh, séer ant Dem moom muy nag séer euh, ant Kumba Deme ko jur nga xam ne moom maa mutu fa ñoo bokk benn baay bañ ko joxee Moodu Aminata Dem euh, mu am cee ku ñuy wax Baraama Dem ak Abdou Awa Dem léegi bi ah, Baraama demee ba war a am soxna ñëwaat bayti Dakar ñu jox ko ku ñuy wax soxna Fallou soxna Fallou Diop mu am ci ñaari doom am ca doom ju ñuy wax Faati Dem ak Aminta Dem fa Faat Dem moomu moo jur Sëriñ Sëmsu Njaay ci Daru Manaan ak sëriñ Muudu Njaay ak seeni rakk kii may wax sax bëgg la leeral sëriñ Madun Dem moomu faati dem muy doom yi muy mag yi ñooñu fa maanaam aminta faati dem moomu lañ ko tudde bi nga xamee am na ñaari doom yooyu beneen doom bi muy amina muy aminta aminta dem aminta dem moo jur ku ñuy wax alima saar alima saar moo jur ku ñuy wax la ngooñ jóob ak làmp jóob ci gàttal ba loolu amee euh, euh, Baraama bi mu fa mu faatoo bi Baraama faatoo ñaar doom yooyu la fi am ñu daal di fa soxna si jox ko Abdou Awa Dem Abdou Awa Dem mii may wax nag mooy seen maam yéen ñii may bëgg a leeral Abdou Awa Dem nag daal di cay taawloo ku ñuy wax Moor Dem Sëriñ Moor Dem Sëriñ Moor Dem nag mooy bàyyi Sëriñ Dem mii nekkoon Daaru Manaan nga xam ne moo jur ma dem mii fi nekk kookaa ci mag ñu mu daal ciy tegaat sëriñ Moustapha dem mu tegaat ca ku ñuy wax sëriñ Moustapha dem sëriñ Moustapha dem moom i moo nekkoon mbaraakan moo topp ci Mor dem moom i ñu bokk ndey ak baay sëriñ Moustapha dem moom i nag moo jur sëriñ Madoun dem sëriñ Madoun dem moom i nekk Mbàkke nga xam ne mooy waajuru Euh, ñi gone yi nga xam ne ñoom ngeen dalal tey léegi mu tegaat ca euh, ku ñuy wax soxna Basin Dem soxna Basin Dem moom moo nekk bayti Dakar moo mooy waajuru Abdou Basin ma doon borom dëkku bayti Dakar mu daal di cay tegaat beneen rakkam bu ñuy wax soxna màggat Dem soxna màggat Dem moom it moo jur ku ñuy wax soxna Boussa Diop ak soxna Ami Diop mii nga xam ne sama waajur moo ko yoroon waaw mu tegaat see ku ñuy wax euh, soxna ma Dem soxna ma Dem nag moo mooy waajuru ku ñu naan soxna Awa njaay ak soxna Nogay Ndiaye soxna Nogay Ndiaye moom mi ngi fi moo jur Abdou Khoudous Lo nga xam ne ñii ma wax ñooñu ñëpp euh, ñooy bàjjani madun moomu madun madun madun mii nekk Mbàkke ndax ñii ma wax ñëpp ñoo baayam ñoo bokk ndey kon nga xam ne ñoo ñu ma lim ñoo sëñ Moustapha Dem mi jur madun dem ñoo bokk ndey waaye sëñ Moustapha Dem moom mi nga xam ne mooy séen maam ba tey nag dafa juraat ñeneen nga xam ne ñooy doomi baayam ndax euh, maanaam Abdou Awa Dem ma dellu siwaat ci moom dafa yoraat soxna suñuy wax soxna suñuy wax Anta Njaga Siise daa di cay am moom ab daaw daa di cay amaat soxna fat dem soxna fat dem ak soxna astu dem soxna fat dem moo jur sama waajur sëriñ Moussa Ndiaye mi ma jur soxna astu dem nag moo jur sëriñ euh, Ibrahima Ibrahima mi nga xam ne mooy waajuru tuubaaloo mi wax ak yéen nga xam ne yéen a bokk mel maam ndax maam ab daaw rek ci ngeen ci ngeen soqi ko yéen ñëpp mu soxna si dellu amaat ku ñuy wax alaaji ibrahima dem ah, alaaji ibrahima dem ba tey mook mook Moustapha dem mii bàyyi ma dem ñoo bokk benn bàyyi mu dellu amaat tegaat si ku ñuy wax siir dem siir ma nga nekkoon tëmb ba tey mook mook sëñ Moustapha dem mi bàyyi ma dun bokk bàyyi ba tey mu tegaat si ñuy wax sëñ Matar dem sëñ Matar dem xam ngeen ko mooy bàyyi ko sa dem mii nekk Daaru Manaan ak Touba dem sëñ Matar Dem moom itam mooy mooy mooy mooy rakki sëñ Madu euh, mooy rakki sëñ Moustapha Dem bi nga xam ne mooy waajur sëñ Madu Dem ba tey waaw waaw moo waaw ko ñooñu la am ñu bokk ak ndey nag ku ñuy wax Basiiru Dem te bokkuñu bàyyi Basiiru Dem mooy bàyyi Sikkim Dem nga xam ne ñooñu ñëpp ma nga xam ne ñooñu ma wax nag ñooy njabootuk maam Abdou Awa nga xam ne kon yéen na ngeen xam ne maam Abdou Awa moomu ñooñu ñooy ak njabootam di ay doomam léegi ñi ma tudd ñëpp nag xëy na xàmmiwul leen waaye seeni doom ak seeni sët ñu ngi fi di seeni bokk ngeen bokk lépp ci tëmb kon bu ngeen duggee ci groupe bi rek loolu dafay am solo lool ndax léegi ngeen xam ñi ngeen xam ne seeni doom yi bàyyi lañ ak ñi ngeen xam ne seeni baay lañ ndax seeni bàyyi ba ndax sëñ ma doon dem moom ay rakkam a ngi fi ñi fi nekk ñi ñëpp ay rakkam moom sunu sunu sàng nag moom ndax su nijaayee ko jur kon loolu mm, ngeen xam ko bu baax xam ne itam euh, ñooñu ñëpp muy Abdou Awa euh, ñi leen meññ mooy waxoon naa leen ne Muudu Aminata dem la Muudu Aminata tamit dem itam maam maam Séer euh, Anta Kumba dama ko jur mu bokk ak ma ma ma fa benn baay ma mutu fa mooy mooy sun moo jur sunu moo jur sunu sunu maam Ablaye dem ak maam a dem nga xam ne ñooñu ñoonu meññ firantu ku ma dem itam ku ñu wax euh, ma daawur dem moo ko jur ma dawur dem ku ñuy wax euh, sir moo ko jur séer itam ku ñuy wax njobmaam njoba dem njoba dem nag moo sanjoon tëmb moo ko jur kon foofu mooy askan wi nga xam ne moo bàyyi euh, mooy askanu seen papa ak seen maam yi bàyyikoo ci maam jobba dem mi nga xam ne moo sancoon tëmb kon noonu la bokk gi dem yéen a bokk ñëpp ndax maam Abdoulaye Awa moom yi maam Ablaye dem ak maam Barama dem ñooy ay doomi baayam ak ma ak maam ma maam Njaga Njaga dem mi nga xam ne mooy maami Tuubaa moom yi ak maam Matar dem ñooñu ñëpp ay ay ay ay ay ay ay ay doon bàyyi ak Mamadou Dem mi nga xam ne tey moo jur ala mooy waajur alaaj Baar Dem bi nga xam ne tey mooy borom dëkk ba kon loolu bu ngeen duggee ci ëtt bi daan ci dégg bu baax te it am na seen mag ñu wax fat dem moom it xam naa dafa maam fati dem xam naa ne dafa sori waaye daanu teew lool di ñëw ci ci ci ndaje mi kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen dal jàmm di leen wax ne dugg ngeen seen kër maam kenn gënu leen cee bokk te kenn gënu leen cee yey bu ko defee rek ngeen di eh, dugg di eh, nemmekonte bu ko defee di xamanteeg bokk yi tuubaaloo moom yi nga xam ne mooy moom ngeen jot de eh, tuubaaloo maanaam maam fa maam fa maam astu dem mii nga xam ne moo jur baayam maam astu dem moomu moo moo maam moo maam Moustapha Dem mi nga xam maam Moustapha Dem mi nga xam ne moo jur ma doon dem dañoo bokk benn baay kon yéen a bokk menn maam ndax Abdou Awa Dem mooy seen maam yéen ñëpp su ma ko doon lim day bari Moodu Dem moo mi nga xam ne moo nekk Daaru Marnaan tam nga xam ne mooy doomi euh, euh, Sëriñ Dem Sëriñ Dem di doomi Moor Dem Moor Dem moomee itam ba tey mooy magee sëñ Moustapha Dem mi jur mi jur mi euh, Dem kon ba tey seen doomi seen seen doomi baay la ak ñeneen euh, kosa dem itam seen baay moom ndax kosa euh, kosa dem moom maamataar dem mi ko jur mooy rakki Moustapha dem mi jur seen euh, seen waajur kon léegi ñooy ñëpp ñoom seeni kosa ak Touba moom seen waajur lañ ndax seen rakki seen rakki baay la fii itam ñi fi nekk ñëpp ñi bari nañ ñoo xam ne seen rakki baay la muy Abdoulaye dem mi nga xam ne mooy waajuru soo dem ñoom ñi ñoom ñëpp euh, seen rakki seen la sa pa sa papaay mag sa papa yaakaar naa euh, ci sët yi ku fi mag defe naa ni bëreetu fi ci sët yi tëmb yi damay yaakaar na sax moom moo ci mag fii ne ci ñi nga xam ne ñooy sëti tëmb yaakaar na suñ ma dundee moom fii ne moo ci mag waaw ci ci ñi nga xam ne ay sët lañ ndax moom it ay ay bàyyam ngi fi ndax rajo dem ñoo ñooñu ak Adama dem ak Idrissa dem ñooñu ay bàyyi ay baayam lañ ndax ñooy rakki baayam kon daal maa ngi taxawlu foofu ba ñu am beneen laaj boo xam ne eh, yitteel na leen wala ñu bëgg ku leen ko leeral lu ma ci xam rek insha allahu dinaa ko wax maa ngi nuyu ñëpp tey gërëm ñëpp tey sant ñëpp di sant itam suñu rakk jooju muy Tuubaa Lo ak mboole mbokk yi ndax moom it nangu naa sonn lool ci bokk gi yal na yàlla yàggal taxawaayam te wéral yaramam ndax ku mën a jotal la te it ñu ngi ciy liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la ndax lii muy def ma am na solo lool ndax kenn ku ne dana tax nga gis ci sa bopp da nga xam da nga xam itam sa mbokk kon noo ngi ñaanal taxaw noo ngi ñaan taxawaayam yàgg lool mu yàgg yàgg mu yàgg taxaw jërëjëf jërë ngeen jëf maa ngi sant Mansour mi nga xam ne itam saa bu ma bëggee wax rek moo may jàppandal ba mën cee wax muy sama jarbaat ñaan yàlla guddal seen rek jërë ngeen jëf salaam